ñu ngi ak Serigne Saliou Dia coach ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick. yow nag yaay coach équipe nationale locale bi Sénégal war a sëgg tey jii ak Maroc jëm ci jongante xaritoo ci waxtu wax xam ne toog nañ pratiquement ay weer yu bëri jéewuñu match boobu lan lay lan lay représenté pour Sénégal ak tamit pour Maroc. donc boo xoolee Malick match match bu am solo la que ce soit pour Sénégal que ce pour Maroc euh, seulement dafa ñëw dans un contexte boo xam ne dafa xaw a métti tuuti contexte Covid bi nga xam ne vraiment voilà nit ñi dafay am ñi. ba pare joueurs yi sax depuis trop longtemps joué wuñu ensemble nekkuñu sax regroupement ensemble voilà moo tax contexte boobu moo ci xaw a compliqué mais defe match bu am solo pour ñaari entraîneurs yi parce que toog nañu yàgg gisuñu seen groupe donc cultivé ñu un li nga xam noonu lañu doon liggéey par rapport ak li naan ay automatisme par rapport ak ni ñuy xamante ci sur le plan tactique wala sur le plan technique voilà beneen bi aussi moom sur le a euh, affiner seen Euh, au delà ci terre li am ci terrain bi defe naa mais dajaloo jour yi booloo jour yi am cet état d'esprit defe naa loolu muy ëpp solo maintenant léegi ci Paul Maidal donc moo tax match bi dafa ñëw ci ci pour permettre que ça soit Aliou que ça soit Aliou logique voilà ñu continuer xool fi ñu ko doon ci liggéey ak nan lañ koy continuer. mais naka la ñu mën a gérer genre match ci contexte bi ñu nekk. waaw du euh, contexte bu xaw a métti la parce que dina méfiance par par rapport voilà yenn yenn yenn regroupement yi mais li am solo encore une fois mooy que mooy mooy que xale dañuy soog a reprendre seen compétition yi ba pare équipe bi toog nañ presque plus de neuf mois sans jouer donc ni ko mën a jëlee mooy un peu avec beaucoup de tact essayer par exemple d'avoir beaucoup plus de possibilités pour nga mën a am li nga xam ne lañu bëgg parce que boo xoolee que ce soit match yi nga xam ne gis nañ ko dans les télévisions presque équipe Euh, pour permettre un peu sauvegarder un peu état fraîcheur joueurs yi ba pare dina permettre comme ni ma ko waxee rek parce que entraîneur yëpp woo nañu ay joueurs bees pour xool yan possibilité la ñuy amaat dans le jeu euh, yan option la amaat par exemple su soo demee ba ci compétition mu xaw a bouché li nga xam option bi ngay def un peu pour mën donc match yi loolu lay loolu lay jariñ daal continuer liggéey ba pare di xool ñuy bees ñi nga andi vraiment lan la ñu mën a andi ak nuñ la mën a taxawoo. muy tamit match boo xam ne pratiquement Sénégal ay cadre yu bëri duñ ci bokk muy Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané ndax naka lañ war a réorganiser suñu euh, defaree suñu organisation tactique par rapport ak absence yooyu. waaw boo xoolee defe naa c'est vrai que c'est pas souhaitable tout le temps ngay am ay absence de marque boo xoolee Sadio Mané par exemple presque meilleur joueur Kalidou aussi meilleur de central voilà même Keita Baldé ki xam ne ñëwul peut-être euh, Edouard euh, Edouard bi nga xam ne dellu na. c'est vrai que euh, c'est pas souhaitable mais comme football moom lu ne mën na ci am en situation de compétition et que dañ naan entraînement tout le temps dafa war compétition parce que mën nga dem ba compétition mu am benn absent y eu le cas en Coupe d'Afrique l'année passée en finale je pense que Kalidou euh, dañ ko il était sous le coup de mais après gars joué nañ sans moom donc match ça te permet un peu comme ni ma ko waxee ñooñu buy joué yow nga xool yan organisation nga a amaat ci ñi xam ne bu ñu absenté nga xool par exemple ki nga vraiment ndax il a être à la hauteur dina mën a remplacer ki nga xam ni nekk fi ak euh, ci ci ci ci ci ci même valeur à valeur égale di nga xool aussi par exemple sur le plan de l'animation du jeu si Sadio Mané se chargé de ça nga xool peut-être ndax benn Krépin il est capable de faire ça voilà yooyu la lay jox après dina la permettre un peu euh, nga am certitude dans l'avenir dans la mesure où dañ naan entraînement dañ naan football euh, lépp war warul war lépp war reconnaissance la xale di war a nekk ci terrain ça veut lu mu war a dajeel rek peut-être gisoon na ko à l'entraînement wala gisoon na ko feneen donc dans cette ordre dina dina la permettre ñu préparer à ces éventualités dans le futur que cas yi d'absence bu posé woo saa ñoom dinañ xam nan lañ koy lijjanti pour mën a projeter un peu. même su fekkee sax adversaire bu Maroc la tudd. waaw même bu bu dee Maroc parce que dafa li dal Sénégal moo dal Maroc en j'ai entendu l'entraîneur ñoom ils ont des cas de Covid ba pare am nañu bu amee ko absenté keneen ki fa nekk mu leer ko ni moom mën na jouer rôle bi voilà mais et loolu un problème de ça c'est un problème mental juste pour être sur le plan psychologique même si mën na am différent mais je pense que li ñu naan la volonté pour déplacer des montagnes nit mën na y a le talent qui est à côté je pense la volonté peut des fois surpasser le talent et que ñi fa nekk je dinañ mën a sol mbubu ñooñu pour un peu donner satisfaction à l'entraîneur Serigne Saliou Dia ñu sant di la gërëm bu baax a baax. ñu ngi lay gërëm Malick. di fàttali coach équipe nationale et locale bi. waaw merci. merci Serigne Saliou Dia bonjour. waaw bonjour Malick. Vous êtes le coach de l'équipe nationale locale. Alors, le Sénégal va jouer contre le Maroc cet après-midi, un match amical international, un match qui se joue dans un contexte de Covid. Alors, coach, dites-nous, que représente ce match pour les deux équipes D'abord, faut dire que c'est un match qui est pour les équipes un match de préparation parce qu'il faut, rappeler euh, la situation qui sévit actuellement. Donc les équipes sont restées trop longtemps sans jouer, sont restées trop longtemps aussi sans un vérifier leurs automatismes sur le plan du jeu, sans revoir un peu le groupe. Parce que je pense que le, football, c'est important d'avoir de temps en temps ton groupe pour que cette dynamique euh, puisse s'installer tout le temps. Euh, au-delà des autres, euh, les entraîneurs ont, ont, ce choix, un peu de, fortifier le groupe par rapport aux constructions de fortifier aussi le, groupe par rapport à, cette dynamique dont, dont, toute équipe a besoin. Et je pense c'est un match qui vient à son point pour les deux entraîneurs. Depuis, comment les coachs doivent gérer ce genre de match Je pense d'abord il faut c'est un match comme, on l'a dit tantôt, dans un contexte un où il y a beaucoup de méfiance par, par à certains qui peuvent être là. Je pense que c'est un match comme, comme je l'ai dit tantôt, oui, il faudra gérer avec beaucoup de, avec beaucoup de tact. Les joueurs viennent de reprendre un peu la compétition. Physiquement, peut-être, ils sont pas, ils sont au top. Ça longtemps que le groupe n'est pas là et les entraîneurs, que ce soit Ali et, et je pense qu'ils ont créé de nouveaux jeux. Donc, c'est des matchs où ils vont se situer entre Euh, enfin, c'est dommage où tout le monde peut jouer parce que euh, c'est une situation exceptionnelle. Les pas top physiquement. Si tu peux les utiliser, si on les utilise tout le match, tu tu, peux créer des blessures. Donc, ce sera important d'utiliser avec beaucoup de mise et avec beaucoup d'intelligence. Le cas du Sénégal, privé pratiquement de sa colonne vertébrale, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mané seront Ils sont forfaits pour ce match. Alors, comment jouer sans si on regarde un peu dans le rétroviseur, euh, le Sénégal a joué sa finale sans Kalidou Koulibaly. Il fallait au Sénégal de trouver une solution. Le Sénégal a une fois joué sans Sadio Mané, euh, sans Edouard Mendy aussi à la finale. Donc il fallait trouver des solutions. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour l'entraîneur de temps, même si on ne sait pas tout le temps que les joueurs s'absentent, mais c'est extrêmement important de temps en temps de jouer sans eux, parce que ça peut arriver dans une compétition. Euh, comme on le dit tout le temps, euh, le joueur qui tout temps de faire doit être tout le temps une, reconnaissance. Quelque part, il a eu à jouer comme ça, il a eu à s'entraîner comme ça. Donc, ça va lui permettre voilà, il pourra vraiment euh, être prêt parce qu'il a déjà anticipé sur ce qui euh, devra se passer dans l'avenir. Alors, est-ce qu'il est facile de faire une nouvelle organisation sans ces cadres Je pense qu'il faut rappeler que euh, le jour, il est, il est, il est, il est un jour n'est jamais indispensable. Tous les jours sont utiles, mais pas indispensables. Je pense qu'un jour qui s'absente, on peut le remplacer valablement. Le Sénégal, c'est Je le rappelais tantôt, il a, il une finale pour l'Islam, qu'elle est du Koulibaly. Il aurait dû gagner parce que les Anglais avaient contrôlé le jeu, avaient plus d'occasion que l'adversaire. Voilà, je pense que c'est pas souhaitable, comme on l'a dit, parce que je pense que l'essentiel, c'est de battre une équipe dans la durée. Et une équipe, c'est un peu de cultiver des automatismes entre les joueurs qui ont de jouer ensemble. Mais comme je l'ai tantôt, s'il c'est l'occasion pour l'entraîneur de un autre joueur dans cette position, voilà, pour prendre, un, d'avoir l'appréciation par rapport à ces joueurs, et de deux aussi, comme euh, je l'ai dit, pour un peu de, s'inscrire un peu dans la durée, parce que c'est un cas qui, pourra se poser en compétition. Serine Saloudia, je euh, vous remercie. Je, rappelle que vous êtes le coach de l'équipe nationale locale.